waaw jërëjëf euh, Abdoulaye. Mhm. Euh, dëgg la ku ñu woowoon la. Mhm. invité ko te am na laytaay itam. Mhm. ndax am na lenn loo xam ne Pastef dund na ko fi. président Ousmane Sonko dund ko fi. te àdduna noonu lay faral di tëddee. léeg-léeg mu am bundu xataal boo xam ne mën nañ koo bundu xataal nit.

il faut Sénégal jàmm dellu si jàmm bi ñu def ay yoo xam ne àdduna yëpp ñu ndax ñu bëri ci Afrique ak àdduna ñoo am naqare naan fan la Sénégal mu mujj waaye Sénégal ci nga xam ne moom moo doon aadam doon cosaanam amaat taxawaay boo xam ne dafa ndéet di doon démb wane ne lii juddu nekk lu ma xam la waaye lu nekk dina am loo xam ne dina nekk ay jalli force bi nag doole bi mooy nan lañ koy produire ba mu daal di faral Sénégal xam ne mooy bi moom alors lu ñu amee Ousmane Sonko en tant que président waa parti jàpp ne dana ko woo ñëw su ñëwee mu firndeel ko taxawaay dafa ne jàngat nañ ko mën a taxawaay jabaat mais taxawaay boo xam ne yéen cee ma jur mënu loon ndax dellu si waat na ci li nga xam ne moom mooy discours am wane ne ki nga xam ne moom mooy président Ousmane waxul dara ci li nga xam ne moom mooy loxo benn sax ba wane ne même si biir ko taxawaay bi ci moom mooy taxawaay yu loo xam ne mën na doon xam ne ak la mu tudd leen loo xam ne balaa wax ak yow yëpp li xam ne moom moo doon ëllëg seen diggante mais dana taxaw na xam ne ñoom ñooy li mën ci ay discours discours yooyu la nga xam ne moom mooy li waa boole ay nit ci xam ne moom mooy am loo lu mu am la lu structure xam ne moom mooy discours la te am na bu doowee président ndax France boo xam xam également ne dafa am foo xam ne fële islam am nga xam ne moom ngëm-ngëm pas-pas ci li mu wooyee nekk ay nekk extrême gauche bu nga ne moom notion de conviction am na ñuy jàngatee unité boo xam ne dañ naan nit moom moom de liberté la ne ñoom dañ ko gëm jàpp ne dañ ko défendre sans complexe mais bu ñëwee yow bu nekk da nga leen di wan ne leen am loo ne mën a gëm